sëriñ Tuubaa xaadalawoo la maxtaar lawoo mas nay julli ji am kum romb muy jàng alxuraan mu ni ko jugal julli ji ca ëllëg sa mu romb mu romb ko di julli ji muy jàng mafaatiwul bisi waxu ko dara waaja laaj ko lu tax waxu ko dara tey sëriñ bi ni ko ku nekk ci julli nuñ koy waxee jugal julli ji loolu jolof la xasida gi itam foofa la ko waye ci liñ wax wallahu taala alam mas naa am ñu sëriñ tuuba xaadaloo la maxtaloo romb ñuy jàng xasida mu ni leen mbaa yéen ngi ci boole mafatihul bisri man maay mafatihul bisri siiw na loolu li muy tegtale mooy màggaayu xasida gi bu loolu jàllee maa ngi xamle ni doomu aadama ni ko sunu boroom subhanahu wa taala binde bari na lool nekk ci moom ci ay mbir yu wuute ba tax na gis nga jaamu yàlla yi ni ñu bëree te wuute julli woor joxe asaka aj màkka xeetu jàmm yàlla gune am na lu muy dolli ci jëmm ji ak lu mu ciy dindi naka noonu xasida yi li ñuy bëri bëri gu ci ne am na lu muy dolli ci murit bi ak lu mu ciy dindi su ko defee mafaatul bisri ak nooru daaray ni li tax murit bu nekk war di ko boole ci li muy jàng mooy leer gi mu lay leeral ak neexal lañu la tànnal ci mbir yi ndax fi mu ne Serigne Touba xaadaloo la maxtaaraloo murit bu nekk am na lu mu bëgg ci yow lu bokkut ak lam bëgg ca bee ci xeeti jëf ginnaaw jaamu yàlla subhanahu wa taala yu mel noon nag xam ko ak taxoo ko ci la lépp nekk ndax day daa doon saw yoon wu gaaw wi jëm ci moom wallahu aalam Thank you.